Poroxaan traiteur waa kër Serigne Abdou Wadoud Bousso di restaurant fast food bu luxe indi leen ay plat yu mucc ayib waaw waaw Poroxaan traiteur waa kër Serigne Abdou Wadoud Bousso nekk fii ci Touba Mbacké Daarul Xuddoos route de ci wetu jàkkay Njóobeen ci intersection tali bi jëm kër Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre am nañ fa shawarma hamburger sandwich moo xam sandwich fois la viande wala poulet mini fataaya fataaya complet ba ci fataaya royal ay poisson jën yu frais ñu lakkal leen ko lakk gu amul fenn ak lépp lu muy àndal am nañ fa KFC 3 pièces ànd ak frites mani la KFC yi ku ko mos dootoo ko bàyyi Poroxaan traiteur waa kër Serigne Abdou Wadoud Bousso am nañ fa aussi poulet entier neem ay beignet crevettes yu neex lool yéen ñi wër pizza bu neex te saf ñëwal gaaw Poroxaan traiteur waa kër sëriñ Serigne Abdou Wadoud Bousso ñoo ci mën seen pizza amul fenn surtout mini pizza yi am nañ fa ay crêpes dañu fay jaay aussi ay poulet de chair lu ngeen ci bëgg rek muy ginaar yoo xam ne toggaguñ ko bépp événement bu ngeen am lim bu ngeen ci soxla su ngeen ñëwee ñu jaay leen ko ci njëg yu xéewalee yéen ñiy def anniversaire bëgg ay gato yu neex gato yoo xam ne noo ko commandé rek noonu lañ la koy defaralee am nañ fa ay gato yu mag ay gato yu yem ak yu ndaw yemuñ foofu ne restaurant bi am nañ fa ay jus 100 cent naturel moo xam jus bissap la di tax jus nebedaay jus mangue jus banane goyave jus menthe bu ànd ak naana mani la bépp jus naturel bu ngeen soxla rek ñëw leen gaaw gaaw bi am nañ fa service livraison à domicile foo mën di nekk defal sa commande ñu embaleel la ko livreel la ko ci nu mu gën a gaawee équipe bu xarañ lool moo fi nekk mën li ñuy def yaatu set te sell Porokhane traiteur waa kër Serigne Abdou Doot Bousso ñu ngi ci Touba Darul Khoudoos route de Guédé ci wetu jàkkay Njóobeen ci intersection tali bi jëm kër Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre jokkul ak ñoom ci 76 409 47 67 wala 77 303 08 04 ak Porokhane traiteur kër waa kër sëriñ Abdou Wadoud Bousso lépp luñ togg day neex sete te sell